Amadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf kàddu yi jéggalu yi Serigne Modou Kara yëkkati la yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëy tëral ci seen xëtu njëkk ubbi l'observateur ci message audio ci la Serigne bi àddoo ci coowal centre de redressement yi ñu jaaba ci réew mi ba di ko ci tudd Serigne Modou Kara nee na mi ngi baalu àq ñëpp muy kilifa diine ba ci kilifa àdduna yi defal ci nag mention spéciale Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre porte-parole xalifa général des Mourides nee na moom Serigne Modou Kara luy naqari doomu aadama ba moom nee na ñooñam it mu di waa gis kenn ci ñoom muy sol tenue moom sax dafa soxlawul sécurité xamal na leen ne kuy taxawal ab service de sécurité na nga jaar fa nga war a jaar dem ci ministère de l'intérieur ba ñu jox la ci autorisation réew mi quotidien nañu sëriñ du Kara jéggalu na ci li xew ci centre de redressement yi maa ngi jéggalu kàdduy sëriñ Modou Kara yooyu la anki dina kay xëy ci xëtamu njëkk ba dolli ñu ci ne Kara nee na du def mukk luy indi baj-baj ci réew mi bàalu yu mitti doomi aadama yi journaliste ko nañu yamu ca ne ginnaaw bi mu bàlloo àq kilifa yi réew mi bàlloo àq waa réew fan yi ci centre de redressement yi moom la ci ci fan yi ci lay soog li gone yi daan dund ci daara de redressement yi le témoigné nañu général Kara dellu na gannaaw baalu na àq ba nuppi désarmé na ay milisam sursoi xëy ñu indil ay xibaar yu nit ñu umpale woon ci daara de yu sëriñ Mudu Kara yi benn ca moo di ba ca wakaam yàggu fa ba ñu ko fa sampee ak ba fa sandarma yi wàcce daanaka ci fukki fan ak juróom rekk ci lay toll benn waaye bu ñu naan Antoine Mendy ñu gën koo xam ci Ndaama Mendy moo profitoo ci xame gu mu xame ak kenn ci doomi Baba Jaw yi ba jël këram ka ca wakaam ubbi fa ab centre de redressement te yu diwaan yi jotoon naa jur sax ab jàppante ci seen biir yi ndaje mu sëriñ Modou Kara organisé woon ca kees kees ba ndakaaru jàpp bawal siin saalum jolof ak njàmbur ci gàttal ci réew mi yëpp woppi coronavirus gi tàmbali na fee am doole journalisé ko nañu moo taxit gaa delloo nañu buum ca boy boy ba sàkku nañu ci alkaati yi ñu gën a taxaw ci contrôle bi dëkk ci opération bés bu yàlla sàkk ngir xam ndax nit ñi ñoo ngi respecté mesures barrières yi am déet lu ci mel ne takku masque gi lëkkute ja nañu matuwaay dàqul ba deuxième vague am ci réew mi dàqu ñu tegaat fi couvre-feu mu di di sàkkal nit ñi waxtu yu ñuy fotoog waxtu yu ñuy ubbi waaye yegg gu ñu fi ñu toll jamono ji moo di yokk matuwaay dolli fagaru nañu tere delluwaat ci contrôle gi ñu doon def ci watay transport en yi ak ci barab yi nit ñi di daje ñu daje yi ci xët mu njëkkal observateur fekkaat fa coowal coronavirus gi ñàkk gi ñu war a fàggandikoo ci mbas mi mi la ñu yéene kaay bi wax ne directrice de la santé di docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye wax na ne fii ak juróom-ñaari fan jàpp juróom-ñetti fan ci weeru décembre suñum réew di Sénégal dina soumissionné wu ngir mën a am ci vaccin yi l'observateur nañu waaye loolee syndicat gi jabote fajkat yi mu di syndicat des travailleurs de la santé déggee wuñu ko noone ak déggoo amatul ci diggante plateforme transfert d'argent bii di wéef ak ñi koy liggéeyal ci diwaanu Touba Mbacké journal Source A moo ko bind ubbil yéene kaay bi prestataire yu ñoo doon amal ab conférence de presse démb journal bi la ñu jëlee dogalu boycotté maanaam geddi wéef li tàmbalee tey ji ci àjjuma ji ba ñu liggéeyati ak moom ba keroog li ñuy toppee wéef ak di ko ko ŋàññee ñu am ci saafara li leen metti ci wéef ba tax ñu jël dogalu boycotté ko nee nañu moo di ñaar fukki dërëm di cent francs yu ñu doon am ni commission ci transfert bu nekk moom la wéef dindi sur soit nañu ñoom prestataire yu Touba Mbacké dem nañu sax bay sàkku ci njiit réew mi Macky Sall mu wax ci bala yëf yi di ëppi loxo Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeen na la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf